jiital ci nuyoo bi suñu président bi nga xam ne le 24 incha allah danañ ko fal mu dem changer di fi nekk fii ci suñu réew. maa ngi nuyu sama jeune frère Malick Gakou mu nekk xale boo xam ne loxoom set na trop ba ñun. ñu xam kan mooy Malick Gakou keroog ba mu démissionné ci poste ministre am laa jël suma téléphone woo ko ne ko je suis très fier de toi parce que nit suñ la dénkee nga taxaw ba nga xam ne gëmatoo li nga xam ne moom lañ la jox na nga am ngor bàyyi te ngor boobu la amoon moo woo ko mu ñëw fekk si ma réew ma sama bureau ñu toog waxtaan ñu échanger boobu lu bari te taxawaayam ñun dañ ko seetlu woon xam ne taxawaay boo ca war ñu koy def yëkkati ñun Sénégal moo ñu ñor Sénégal la ñu bëgg mu yëkkati ko moo tax ñu dem ma dem man personnellement waxtaan ak moom ba waxtaan ak moom aussi li ñu ko wax mooy programme bi ngeen di wax programme bi jeexagul de danañ gën a kontaan parce que programme bi jeexagul danañ enrichir parce que ñun dañu gëm jigéen moo tax ma jël sama ñaari jigéen ñuy teg leen sama wet pour waxtaan que jigéen dafa yaa ngi normal sa économie réew yaa ngi normal sa sa sa réew moo tax jigéen luñ ko jox rek. yeewoon na lu ko ëpp gis naa nag ngeen wax lépp mais waxu ci parité te loolu moo war a jëkk te ñun ñi nga xam ne ñu ngi góorgóorlu pour am loolu defe naa ne war nañu insister pour respecter loi bi nga xam ne moo jox jigéen ñi seen cër loolu la ñu war a jëkk a def li ngeen wax yëpp nag seen euh, déclaration bi dégg naa ko danañ ko yeggee. président Idrissa Seck te ñun tam dañ ci taxaw pour que ñu mën a respecter engagement yooyu yëpp parce que wax nañ ko nit kàddoom la te njiitu réew boo bëggee ñëpp topp la boo bëggee nekk exemple dafay fekk nga sàmm sa kàddu te yéen yéen war a taxaw parce que yéen yéenay jigéenu Sénégal yéenay économie Sénégal yéenay yaay yéenay docteur yéenay lépp